Camara Ibrahima Cissé ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yow yaa jiite association des clients et sociétaires des institutions financières ñu naan ko ACSIF ministère bi ñu dénk wàllu microfinance ak économie sociale et solidaire dafa door ab euh, atelier lël woo xam ne dañu ci waxtaane euh, xool na ñuy def ba taux d'intérêt yi nga xam ne euh, système financier décentralisé yi ñu ngi koy teg ci kaw clients yi ñu wàññi ndax am nga yaakaar fii ak njeextalu liggéey bi mbir moomu daal di nekk. parce que tey li ma gis ci waxtaan yi wane na ni microfinance yi ñoom ci bopp seen bopp xam nañ ni population bi sonn nañ te liñ leen di teg attanuñu ko parce que nit ki boo ko tegee lu mu attanul dootul mën a fay te ñoom bu bu usagers yi clients yi fayul ñoom it doot ñu mën a fonctionner bu yàggee dañuy daanu comme nag euh, dañoo bëgg système bi continuer il faudrait que coopération am opération boo xam ne gagnant gagnant la parce que bu benn parti di gagné beneen parti bi di perte bu yàgg bu yàggee euh, système bi yëpp moom mooy périclité te daanaka système bi yëpp moom mooy daanu comme nag ñoom dam nañ ba gis loolu euh, te président de la république bi ko biddee wax ko pour mu wax ci wax na ci te gis nañ ni ministre de la microfinance mi ngi jéem a traduire euh, volonté boobu nga xam ne chef d'état bi wax na ko en acte moo tax mu woote léegi nag atelier bi taux d'intérêt bi lañuy xool il faut que ñu xam ne taux d'intérêt yi dafa am lu ñuy wax taux débiteur bi mooy taux nominal bi nga xam ne moom la ñuy bind ñu ñu koy wàccee euh, weer bu nekk ak to effectif global bi taux effectif global mooy xayma xaalis bi ñaata la dikkee mais ba ci gën a sew mooy taux annuel effectif global parce que at bi parce que taux d'intérêt at at la annuel la dafa at bi lañ koy calculer il faut que at bi a bi nga xam ne jël na fa prêt ci ñaari at fa at bu ne xam xaalis ba dëgg dëgg dëgg ñaata la ko liggéey parce que taux boobu moom ca la ñuy def frais yeeg ca la ñuy def assurance yeeg ca la ñuy def euh, euh, même garantie bi nga xam ne da koy joxe sous forme de euh, PEP lañ koy wax mooy garantie bi nga xam ne xaalis bi dañ ko fay bàyyi parce que microfinance yi booy jël un million dañ lay wax da nga fiy bàyyi benn garantie cent mille yi da nga ko te cent mille yooyu yëpp koy fayal intérêt donc xayma ko ci taux boo xam ne ñëpp danañ xam li mu doon ba pare du dépasser plafond bi parce que plafond bi actuellement dafa nekk ci vingt quatre pour cent daanaka téeméer bu nekk ñaar fukk ak ñeent moom mooy lañ leen wax duñ ko dépassé boobu nag ñëpp jàpp nañ ni war nañ ko mën a wàññi parce que dafa kawe moo tax nag woote bi am solo te loolu nag lañ nekkee di lañ nekkoon tey di waxtaan ñoom ñu wara nañ bëgg nañ wàññi c'est réalité dañoo war a wàññi ndax euh, microfinance boo xoolee ni ñu ko créé Mouhamed Younis du ko teg dimension sociale bi lañ ciy gën a xool marchand ambulant bi jaaykatu jën bi jaaykatu gerte caaf bi jaaykatu njàmpe yi ñi nga xam ne ñoom dañoo amul néew doole bëgg a liggéey yenn saa ñu dëkk ci ay localités yoo xam ne dafa dafa dafa dafa sori lool duñ gis banque duñ jëf dara ñu ne ñooñu la microfinance bi war a dem seeti tàggat leen édu defal leen éducation financière jox leen financement yoo xam ne danañ ci mën a liggéey léegi nag ñooñu système bi warta warta warta jeng parce que ci am alal bu demee banque taux bi du dépassé quinze pour cent waaw pourquoi nag néew doole bi moom bu demee ci mutuelle bi ñu ko teg taux bi di dem ba vingt quatre pour cent kon fi ne mutuelle yi ñoo gën a cher sax banque yi fuuf parce que mutuel yi banque yi ñemewu ñoo de vingt quatre pour cent banque yi quinze pour cent téeméer bu nekk fukk ak juróom duñ ko defar ñee nag nga xam ne ñoom néew doole yi lañ nekkal mu mel ni système capitaliste boo xam ne ñii am dañuy gën a am ñii ndóol di gën a ndóol mm-hmm. parce que ñii ndóol ñu defal leen ay mutuelle yoo xam ne taux bi dana mën na dem ba ñaar fukk ak ñeent waaw loolu nag il faut ñu xoolaat ko bu ñu bëggee dëkk bi xaw a équilibré mm-hmm. loolu nag moo animé ñëpp ñu xamal leen ni il faut que ñu wàññi parce que bu ñu bàyyee taux d'intérêt bi nu mu demee nii clients yi bu yàggee du ñu mën a fay te bu ñu fayatul ñoom seen bopp dañuy daanu. Mhm. comme bëgg nañ nag clients yi di fay dañ leen defal ay taux yoo xam ne vraiment danañ ci mën a. njëriñoo ba pare mën leen a fay ndax système bi mën a continuer. yéen wàññi bu ñaata ngeen bëgg. waaw ñun dañ leen ne ñu xaaj ko. wax dëgg yàlla AXIC nee na leen. ñun plafond bi nañ ko yóbbu douze pour cent. loolu nag méwetu ak AXIC la mais ñoom jàpp nañ ni euh, mënuñu koo yóbbu ñemewuñoo jël risque. yóbbu ko foofu plafond vingt quatre pour euh, douze pour cent parce que loolu décision chef d'état de l'UEMOA parce que espace UEMOA lañ nekk mais en interne tamit ñemew ko wax parce que dañ ko liggéey ko ñeneen ñoom buñ ko mënee am ñoo xam ne parce que trois cent trois euh, institution de microfinance moo am ñi fa nekkoon ci biir salle bi euh, ci institution de microfinance moo tax ñu diis mm. donc mënuñu jël décision boobu génn jàkkaarloog seen i seen i morom mm-hmm. danañ teg ay mécanismes yoo xam ne danañ di accompagner ñoom pour que ñu mën a wàññi taux d'intérêt yi parce que ci ci mécanisme yooyu am na lu ñuy wax BIC bureau d'information sur le crédit bureau boobu euh, day tax tey banque ba boo ko demee te xamu la euh, xam nga risque bi day bëri parce que xamu la mu lay jox xaalisam donc risque bi day bëri te risque bi bu bëri rek euh, day yokk taux d'intérêt bi mm-hmm. léegi nag ñoom mettre nañ leen benn dispositif boo xam ne ñoom danañ mën a consulter ci seen ordinateur xam ki ñu jàkkaarlool nii kan la ndax moom mën na fay wala mënul fay wala boog dafa am feneen bor ñëwaat di lekk pour fay ak yooyu noonu dinañ xam information yëpp bu gisee ni kii yàgg na jël prêt di fay normalement donc am na réputation bu koy permettre tey ñu jox ko taux ñu jox ko prêt ci benn taux boo xam ne mm. euh, dana ci mën a génn donc ay mécanismes yu mel noonu ak assainir milieu bi da am solo parce que dafa am ay microfinance yoo xam ne am amuñu agrément ba pare di doxal mm. am ay microfinance clandestine yoo xam ne dañoo bëri donc il faut que di leen concurrencer donc il faut que ñu assainir milieu bi am ñoo xam ne tamit ay ay femmes lañu dañuy dem ca banque ba lekk ko benn un million dem ca ca ca ca ca seen yeneen moroom femmes yi leen ko vingt cinq mille vingt cinq mille vingt cinq mille boo euh, six mille mm-hmm. ku nekk xam nga yooyu dañuy concurrencer institution de microfinance yi mm-hmm. ñoom gis nañ tax ci concurrence boobu sax ni état da leen concurrencer parce que da jël ay fonds di ko leble euh, naan les quatre P lu kenn xamul mm-hmm. donc yooyu yëpp c'est une manière de d'assainir euh, l'environnement te assainir bu ñu environnement bi rek ñoom dinañ mën a liggéey danañ ci mën a génn joxe benn taux boo xam ne wax dëgg yàlla client ba dana ci am ñoom ñu am ci te kenn du lor moromam. d'accord bu weesoo taux d'intérêt yi ndax dafa am yeneen jafe-jafe yu laxasu ci microfinance bi. waaw xam nga balaa ngaa ne naam ne bala balaa ngaa ne damay jël prêt nga am compte hmm. waaw ñun xeex nañu ci banque yi. taux euh, ouverture compte gratuite la doo fay dara waaw sagam borom alal ji moom buy ibbi compte du fay dara sagam du ma laa baa la bi bu ñu war a jàppale mais ministre finance yi ñoom boo fa demee pour ibbi compte ñu ne la quinze mille francs mais baa doxla bi ta dajale quinze mille francs pour ibbi compte balaa ñoo mën a am frais bañ naan la ñu wàññi taux ba day fekk ñu am compte parce que boo amul compte doo am frais moo tax ñu ne leen nañ fexe ba compte yi mu gratuit parce que loolu yëpp dafa bokk ci frais bi parce que boo waxee taux d'intérêt rek balaa ngaa naam ne naam ne fa léegi nag ñu ne leen il faut rendre le compte gratuit boo leen rendre le compte gratuit ba pare léegi nag ngeen permettre leen ñoom ñu ñëw euh, def ay prêts à des taux yoo xam ne di leen ko jox ñu liggéey fay leen ngeen am ngeen am système bi avancé. ana fu ngeen toll ci xeex bi doxoon seen digganteeg banque yi. waaw ci te duñ euh, que tey boo gisee. ñun bu ñu demee ci euh, euh, ci atelier bi teg nañ fa cinquante point yoo xam ne ay recommandation la yoo xam ne ay proposition la donc juróom fukki point yoo xam ne dañ koo teg parce que ñun lu ñu jot ci réclamation ci ay plainte dafa bëri nit ñi di ñaxtu nit ñi di jooy nit ñi di ñu wax seen i problème dafa bëri moo tax bu ñu ñëwee ci kaw taabal ba dañ faa teg euh, juróom fukki point yoo xam ne dañ di ñaax ñu xoolaat ko bu baax parce que ci population bi la jóge donc ñun xeex bu ñuy xeex di ko xeex pour que taux d'intérêt yi wàññeeku ci banque yi comme ci mutuelle yi ñoo ngi ci bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. Euh, duñ ci dañ parce que d'ailleurs dañoo bëggoon euh, état parce que assemblée nationale lañ ko woon tey ci rencontre bi euh, mu nekk loo xam ne dañ cee profité pour wax leen il faut que ñu voter ay loi yoo xam ne day gën a sàmb client bi. parce que client bi ak banque bi client bi ak mutuelle bi tolloowuñu doole saa yu mutuelle bi. tooñee client bi client bi da koy bàyyi ak yàlla. Hmm. saa yu client bi tooñee mutuelle bi wala banque ba ga gis mu jël avocat am yóbbu ko tribunal. nangu ay bien ñu ne léegi nag client boobu nga xam ne moom mooy maillon faible bi ñu protéger ko pour protéger ko nag il faut que ñu may ko moom euh, buñ ko tooñee mu mën a xeex ah, mu mën a dem tribunal bu ba ne doone benn hmm. xeex fa àqam ak yelleefam pour loolu am nag comme ñun amuñu moyen client bi amul moyen yi mu jëlee avocat te bu demee banque ba dina fay lu ñuy wax taxe sur les opérations affaires financières. Mm. ñu ne nag ci taxe boobu nañ ci comp benn montant boo xam ne dañuy mettre en place un fonds boo xam ne. Euh, loolu rek lay njëriñ ku ci bëgg ñu dem ñu jox la avocat nga dem fu mu ne doonee benn beneen bi mooy dañuy gis koo xam ne dafa jël këram jël otoom lépp yóbbu ko ci banque ba wala ci mutuelle ba garanti ko fa. waaw mu jël ko pour bëgg a liggéey rek jënd ci marchandise ak yooyu yëpp marché ba tàkk mu ànd ko benn service. ñu ñëw constaté ñë journaux yi yeeg ñëpp wax ni marché ba mu issee wu ñëw constaté ko. Mm-hmm. mais du bénéficier wu dara parce que bu boobaa kër yi mu joxe woon la ñuy jël jaay ñu ne leen na il faut que benn loi boo xam ne la loi sur le délai de grâce. loi boobu day tax tey ku sinistre arrivé ba nga xam ne constaté nañ ko mu leer ni constaté ko bor ba nga waroon fay duñ la ko baal de. Mm-hmm. mais danañ danañ ko reporté. yokk délai deux ans de yokk délai bi boo xam ne di nga ko mën a fay. Mm-hmm. te doo te du ñuy jaay say bien. am benn loi boo xam ne c'est la loi sur le délai de rétractation loi boobu day tax tey ñun ñëpp xam ne ñuy signé contrat yi ci banque yi boo demee ci banque ba lui est approuvé dëppal kayit bi lui est approuvé dëppal kayit bi lui est approuvé dañuy bari ba doo am temps wu liir duñ la ko sax may mhm. doo ko sax liir mhm. ñoom ñoo ko dul sax may doo ko sax liir léegi nag ñu ne il faut que comme yeneen dëkk yi ñu la loi sur le délai de rétractation daanaka buñ la pamte pamtee noonu ba nga ba pare dañ la jox exemplaire boo demee sa kër nag toog liir ko nag ba gis nii am na loo xam ne bokk gisoo ko woon wala neexu la ci woon nga muñ a ñëw rétracté wu ne leen ah li ngeen lii ak tu ak taux d'intérêt bi laajte naa fii ak fii bii daal baaxul man d'accord ma bu ko defee mais fii mu toll mu toll ni boo xasee ba signé moom dee nga amatoo dellu gannaaw ak yooyu yëpp loolu nag il faut que ñu protéger client bi nga xam ne moyen faible la amana jàngul amana euh, voilà na mënta lire Hmm. Amana tamit euh, bu muy signé xaalis rek la doon gis. Hmm. mais bu signé ba pare ba dem toog reposé ñu ne ko wax mu mën a ñëw euh, xool ndax arrangé na ko wala arrangé ko muy. donc ay loi yu mel noonu ndax xam ne dafa am ci yeneen dëkk yi nga xam ne dañuy sàmb seen parce que xam nañ ni relation financière bi du du relation boo xam ne ñaari parties ñoo tolloo doole. tolloo ñu doole te leer na il faut ñu protéger moyen bu d' accord ngeen tàmbalee xeex bi ba tey ak banque yi ndax euh, am na ay ndam yoo xam ne ñuy jot ngeen kaa am. waaw am nañ ay ndam yu bëri xam nga banque bu njëkk ba duñ communiquer sax ak nit ñi mais léegi gis ngeen ni dañuy communiquer di afficher ci biir banque yi am nañ ci fukki poñ ak juróom-ñeent yoo xam ne bañ ko tegee ci kaw table bi am na banque yoo xam ne bëgguñu woon sax appliquer parce que dañ ne woon euh, da leen di perte loo xaalis mais fi bi nga xam ne li ci ëpp banque yaa ngi koy euh, appliquer xeex bi nag du jeex. day gën a continuer parce que frais yi dafa bëri il faut que phase boobu ñu dépassé ko parce que non dañuy ñu dépassé dañuy def phase de gratuité bi 19 yi ñu dépassé ko très rapidement dem ci phase bu bees phase bu bees bi nag fa la taux d'intérêt yi di wàññeeku fa la di wàññeeku fa la service yëpp di wàññeeku même pénalité yi yëpp dañ koy harmoniser wàññi ko parce que tamit du yoon ngay gis banque bi di dagg agio 6 000 kii di dagg 7 000 kii di dagg 2 000 il faut que mu am benn harmonisation beneen bi mooy il faut que ñu adapter les les les les euh, les les crédits parce que tamit ku bëgg a tabax nga jox ko crédit bay kooku sonal nga ko parce que après du la fay wala ku bëgg ku bëgg dem sàmb ji nga jox ko crédit immobilier kooku adapté wul crédit bu adapté wul la da koy utiliser ba pare du la mën a fay donc il faut que ñu ñu régler euh, euh, yooyu yëpp ñu adapter crédit yi aux ci besoin usagers yi parce que tamit boo gisul lu nga bëgg da ngay mujj jël loo bëgg ci banque ba mooy lan man damaa bëgg a béy te banque bi moom crédit tabax rek laa am xaalis rek ngay gis yow alors que taux yi peut du benn euh, ni ñu koy joxee béykat bi ak euh, tabaxkat bi mais beneen bu ci ah, gën a am mooy euh, xam nga néewum doole yi ci institution de microfinance yi ñëpp xam nañ ne amuñu garantie parce que garantie yu banque yi di laaj mooy titre foncier wala bàyyi man bu ma dëkkee Saare Maodo Dandio sama sama sama sama terrain ba fa nekk nga xam ne mais délibération sax euh, awma ko parce que fa laa dëkk mais war nañ mën a trouver ay yoo xam ne dina permettre ma bénéficier prêt mooy lan banque centrale teg na BIC BIC consultation la boo xam ne day ibbeeku ci banque yëpp ci mutuelle yëpp mutuel bu ci bëgg waa ji xamoo ko jëlal carte d'identité am tapé ko ci biir mu wax la fu mu jaar ndax mu ngi fay facture électricité am normal mu ngi fay facture ndoxam normal ndax amul crédit ci benn banque mën a ñëw di tappale fii bu dee bu dee koo xam ne la ku jub la yàgg na jël crédit yàgg na fay nga xam ko donc réputation financière rek war na mën a tax nga jox ko ci prêt boo xam ne risque bi day wàññeeku loolu day contribuer ci wàññi taux parce que tey taux d'intérêt il faut que ñëpp xam ni risque la parce que waa ji naan xawma ko dama koy jox sama xaalis comme nag dafa risqué taux d'intérêt bi dama koy yokk mu gën a fort nag bu ñu wàññee yooyu ak BIC nga xam ne banque centrale teg na ko te ñoom mënuñ ci sukkandiku pour wàññi seeni risque euh, vraiment je pense que amatul raison pour que mutuelle yi wala banques yi di appliquer yenn taux d'intérêt yi vraiment. Famara Ibrahima si ñu ngi lay gërëm. maa ngi leen di gërëm. fàttali ni yow yaay njiital association des clients et sociétaires des institutions financières di ACSIF ñu amoon mbégte dalal la ci matinalu réew mi. maa ngi leen di gërëm di